a un sujet examen blanc bi ñuy wax ci Il di war a ci wax tuuti lu lu ci lu bari ginnaaw bi ma Sénégal, askan Sénégal nuyu xalif généraux yi nuyu autorité ministère de l'éducation nationale nuyu autorité académie de Rufisque nous nuyu autorité CRFP de Dakar fas yéene naa joxe sama kàddu waxtaan ak yéen ci lu xam ne loo mooy dëgg ci li jóge ci sujet bi man mi Ousmane Balde bi ñu nommé coordonnateur cellule d'anglais muy liggéey ak IAD daa daanaka at at yu bari xam naa li ma war a def en tant que coordonnateur ci wàllu choix de sujets du ma ci ñëwaat lu bari ndaxte li am am na ba pare wante li ma mën a leeral mooy que sujet bi ñuy coow gudd ak bëccëg man mii Ousmane Balde joxewuma ko musuma koo bind waaye nag di leeral ne sujet bi lu amoon la ci sama banque de données en tant que coordonnateur de cellule sujet bi amoon na fi at at yu bëri daanaka sax lycée Abdoulaye Sadji mus na ci am composition premier semestre 2012 bu muy dugg nag ci sujet yi ñu war a joxe examen blanc par erreur la nekkul loo xam ne man dama koo décider li firndeel lool mooy comme man mi Ousmane Balde ku ma xam-xam ne man laalewuma benn yoon ak képp koo xam ne gars yaa ngi wax waxu homosexualité borom ñaari tuur yi daal képp koo xam ne ci Sénégal yaa ngi leen di xeex jàpp naa ne man mi Ousmane Balde ngay nekk di jàppale ndaxte ku ma xam. xam ma li ma nekk ci diine ak li ma nekk ci def di diine ku ma xam xam na ma ci diine ku ma wutu wut mun na ma fekk ci diine ku may dax mun na ma ñëw fekk ci diine kon man mii munumaa nekk dans la politique de promotion lu mun a jóge yàq suñu askan benn yoon bokkuma ci ñaar yoon bokkuma ci ñett yoon bokkuma ci lépp lu jëm ci borom ñaar tuur yooyu ak ku leen tudd yépp man mi sama bopp aramal naa la kon na sénégalais yi jàpp ne lépp lu ñu ci wax rekk man nag jéggal naa ñi ci wax noo xam ne xamuñu woon lu ñuy waxee jéggal naa ñëpp waaye nag leeral ne taxewu ma kenn joxuma xaalis waxtaan ma ci kenn musuma ci waxtaan kenn te duma si mun a waxtaane kenn te sama diine mayuma may tronqué sama foi ci lépp loo xam ne gars yi mbirum àddina la ku ma xam fu ma cosaanoo ku xam fi ma jaar ak fu ma egg fi tey loolu yëpp firnde na la man na mun ma ci bokk su ma gisee ku ci bokk nag man ak moom dinañ xeex na leer ci Sénégalais waaye nag li am am na erreur am na ci bi ma doon envoyé copie et eh, épreuve yi yi jógee sama bureau pour dem yaa Rufisque maanaam bi may sélectionné dossier di ci def ay fichier attaché pour que yaa Rufisque mën jot épreuve à temps réel dans le cadre de la composition du premier semestre bu examen blanc du second semestre bu wax examen blanc yooyu te ma ci nekkoon di liggéey ci ay conditions yu metti metti ay pression yu bëree bëri bëri djumna ci yoni lo xamné ne bokku ci woon ndaxte musuñu ko tànn man ak sama collègue bi ñu doon liggéey mosuñu xalaat ne joxe sujet bu mel noonu kon sujet boobu bu ko ci li ko ci dugal erreur kese la erreur boobu nag moo tax may jégalu jégalu Sénégalais yi njëgal boobu maa koy jégleel ministre de l' éducation nationale njuumte am na maa ngi koy jégalu bu baax a baax maa ngi jégalu IA Rufisque ak ñi mu bokk di liggéey yëpp maa ngi jégalu CRFP Dakar sama directeur ci boole ci njëgal bi nag. mbooloom sénégalais di commencé ci xalif généraux yi di wàcc ba ci sénégalais bi ci a tuuti maa ngi ciy jéggalu sama collègue yëpp képp koo xam nga professeur d'anglais nga maa la ciy jéggalu ndaxte ñun mii ci suñu aada ak cosaan ci wàllu préparation du sujet xam nañ lii moom lu du lu mënul nekk la kon ñëpp ñi ko wax ne gaa lii waruloon am waruloon am jox naa leen dégg yi am nañ dégg waruloon am waaye njuumte moo tax mu feeñ fii daanaka du fii lañu waroon fii lañ ko waroon feejal wax dëgg yàlla kenn prévoir ko kon maa ngi jégalu ci sama collègue professeur d'anglais yëpp ci Sénégal maa ngi jégalu ci sama collègue yëpp CRFP Dakar maa ngi jégalu ci élèves sénégalais yi ci élèves Rufisque tuuti ci élèves yi nekk diwaanu Rufisque jàpp naa ne bi ma fi duggee ba léegi lu baax rek laa fi liggéey nekk naa lycée Abdoulaye Sadji lu ëpp fukki at di fa jàngale formé ci lu bare bare bare ba léegi kenn déggul fenn xam ne kii de am na lu ma fi yàq jóge naa lycée Abdoulaye Sadji ñu indi ma CRFP de Dakar comme formateur ma ànd sama collègue di liggéeyal Tëngéej ndaxte man dama bokk ci askan Tëngéej parce que sama premier poste Tëngéej la musuma xam feneen Tëngéej laa xam sama askan dama bokk ci askan Tëngéej kon man du man may ñëw yàq lu xew Tëngéej su ma mënul jàppale population Tëngéej mënuma koo yàq parce que su ma yàqee Tëngéej sama bopp laa yàqal ndaxte kenn xamewuma feneen fu dul Tëngéej ku ma xam en tant que professeur d'anglais en tant que jàngalekat danga may rattaché forcement ci askanu Tëngéej kon maa ngi leen baalu àq bu baax a baax yéma yëgal leen ne lii xew xew na waaye nekkul sama coobare bopp jéggalu ci ñëpp jéggalu ci ñëpp jéggalu ci ñëpp lii erreur la njuumte la bu jóge ci man waaye man nag musuma bind benn yoon sujet bi léegi leer sujet bi binduma ko keneen joxe woon na ko mu nekk sama banque de données malheureusement mu infiltré ci li xew tey nag man porte naa responsabilité bi loolu moo tax ma taxaw fii du leen baalu ax parce que su mbir amee il faut que mu am koo xam ne kii moom mooy responsable bi ci loolu laa jëlee responsabilité bi gàddu ko boolewuma ki keneen gàddu naa ko. jërë ngeen jëf askan Sénégal. macha allah.